Thank you. More than 3.5 million dollars was giving out with the AfriSol Daily Crazy Cash in 2013. More than 60 winners won up to 80,000 dollars cash every day. And now, Afrisol brings you the Daily Crazy Cash 2. Yes, the Afrisol Daily Crazy Cash is back, for far more crazier. Con los terroristas. More than 3 million Telesis cash to be won by AfriCell subscribers from now till the end of this month. That's daily prizes ranging from 80,000 Telesis up to 250,000 Telesis cash every day. Recharge $25 or more every day to be part of the live draw on JRTS and get the chance to win up to $250,000 cash daily. Who can go crazier than Crazy cash, crazy month, crazy winnings with up to $250,000 is cash for you every day from AfriSal. Good evening and a warm, warm welcome. And once again, welcome to GRTS. Uh, this is your famous Crazy Cash show brought to you by AfriCell, the biggest GSM operator in the Gambia. Uh, we are back again, and uh, tonight we will be doing another draw for $160,000. And uh, we've got the winner from last night's uh, draw. He's presently in the studio, and uh, he'll be coming forward to collect his prize. And uh, we've told you as the days progresses, the prize money is going to go higher. So if you have not been recharging, you have to do so. Now we have a limited number of days. It's now against Friday. We've told you on Thursday, the draw is going to be for $200,000. And Friday, which is going to be the last day of this program, is $250,000. So I guess by now everybody knows what it takes to be part of this uh, program. Oh, yes. Isn't it, Mama Limbo. Correct. di leen dalal fii si GRTS TV Africell fi dellusiwaat indil leen beneen crazy catch draw te tey tamit dafa gën ne ngir affaire si yokka nañ ko démba joxe nañ one hundred and fifty thousand dollars te borom ñëw na sax dina ko jël si tey tey tamit beneen draw bi ñoo def tey it's for one hundred and sixty thousand dollars loolu di xaalis bu bare bare te comme niñ leen ko waxee rek every day dafa gën di yokk so ëllëg dafa nekk one hundred and sixty thousand no tey la moo nekk 160000. ëllëg mu nekk 200000 gannaaw ëllëg 250000 once again so li ngeen am pour def yomb na torop xam ngeen ko bu baax a baax kon door leen di recharge ndax ngeen mën a bokk si ñuy gagné. Jenabo ah loolu dégg la leer na torop ñëpp dégg dégg nañ ko ñoo ko déggandoor a ah, jaarama buy maama leen asalaamaaleykum musidɓe ɓen africell artani en ɗo ɗum wori warire ñande wo ñande min arana on ɗo crazy cash min inni on ha hande on anditina on ko waktu ɗum so tawino faala gane o mbuuɗi woni koyo nattin crédit mo nogoye jeeyi walla ko ɓuri ɗum tun gañoɗo mbuuɗi boyi hankkino min waɗi dromo annanda ko 150 ɗum woni guluje temedere e capanɗe joyyi ɗum ko fi hanki on jooma on kalis o ari hannde hannde ɗumen on dromo annanda ko temedere e capanɗe jeegoo guluje temedere e capanɗe jeegoo ko on dromo en watta hannde janngo noon min wonana on dromo annanda ko guluji temeɗɗe watta faabi janngo ɗum woni ajjuma si allah jami min wonana on guluje temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe je ko dun tumen inne on ha joni min on ko crédit mo noga joyi walla ko ɓori ɗon tun nattintol gaña donc numbers ji mon ɗi no yaltude o screen andintina on no sodiri toon ko noon arsikeji mo ɓurata odutude crési cash e africel ko ɗum men on ko gonga tigi thank <laughs> oh, yes oh yes i want make sure i learn how to speak at least five languages very fluently So, so far I'm polishing on two. The Olaf is already on point. And then I'll move to Sarahule and the others. Good luck. <laughs> I need it. <laughs> a ah, mbadi man li laal mulu tale jani afisel natal jeng pour kay nek zikas programme natali kunu ah, nga dro kinu jani pour womo wuli keme anintan lulati andu mm. nga mosoto me yalon ka tele a gagner ah, ñaatu domani alba mari jela bari bi na bi dro dum wobe kala wuli keme anintan woro lati tangoro aɓe kala wuli keme anin tan woroleti mm. bari aram misalugo aɓe kela wuli keme fulala ti den juma lungo wole ɓe kela na lum uh, laɓaŋo ti woɓe kela wuli keme fulala ti so ŋamira sañ mol ɓe yalon ne pour que bula e, da bula ñiñoo seya kono i ñanta men kela wolem ka crédit ko sandron ni crédit ko sandron amunta ko i daaɓe ñiñoo seya kono men tudaje wo mu harje doneti uh, in the meanwhile what we will do is we'll take a quick commercial break and uh, when we come back we'll do the rest of the presentations So don't go away, guys. We'll be right back. More than 3.5 million Dalasies was giving out with the AfriSol Daily Crazy Cash in 2013. More than 60 winners won up to 80,000 Dalasies cash every day. And now, Afrisol brings you the Daily Crazy Cash 2. Yes! The Afrisol Daily Crazy Cash is back, for far more crazy. Con los terroristas. More than 3 million million is cash to be won by AfriSoul subscribers from now till the end of this month. That's daily prizes ranging from 80,000 Telesis up to 250,000 is cash every day. Recharge $25 or more every day to be part of the live draw on JRTS and get the chance to win up to $250,000 cash daily. Who can go crazier than AfriSoul? Crazy cash, crazy month, crazy winnings with up to $250,000 cash

very good so foo dëkka si fii ndax jaara nga dëkka déedéet Bruce bi Bruce bi nga nekk ah, yëgoon nga ne démba yaawin waaw yëgoon naa kañ nga ko yëg si guddi guddi waaw dañ ma koolal di seetaan eh, ah dama génnoon si sama friend ci laa nekkoon di si guddi den téléphone bi start di gars yi di kool di kool di kool di kool di kool ñu ne ma dama win waaw gëmoon nga ko hmm? gëmoon nga bii gars yi di kool non gëmoon ma ko dama foog ne danga nax rek waaw dama naxaate bi nga ko foon daal <laughs> waaw kañ nga ko ñëw góom nag hmm, after bu ma amee call from officer nga ne eh, this is for real yes so lan nga doon def danga doon recharge rek waaw dama yi recharge di rek yàlla ñu wërsëgal la ko hmm. ah bii mooy mburu bu daanu ci soos <laughs> nga pati rek a ci des question laa bi la nit ñi di call nee la nga win from Africell ba nga ne gomuloo ko ak ba bi la Africell di call ne la la da win diggante boobu noonu loo fii lool. <laughs> lu doon daw si sa mind bi. ah su ma xel bi moom time boobu dama am so many things ma am mind. <laughs> xam naa yaa ngi naan hey su nekkoon waaw waaw because. yàlla na nekk dégg. Mm, lii ma sa réel mooy. réew boobu dina xaalis bi bu ko dama doon xalaat affaire xaalis bi la ay non hundred and fifty thousand yaa xaalis bu bëri la de pour liggéey ko dina jël time de foofu mu fat anyway Famara ñun tam kontaan nañ trop pour am la Asabina parce que yàgg nga Africell waaw yàgg na fa kay very good ko xaalisam maama leen jox ko xaalisam so ñi laa gis ñëpp dinañ jis ne lii yëpp sa xaalis la loolu neex def ko ci am nga jabar sax baa diwee ah non non amaguloo jabar non awaguma jabar ah, waaw mu ngoo ah 150 ngoog de gaa yaa ngi laa seetaan nag <laughs> gaa yi ñu ngi seetaan de <laughs> waaw ok kon ñu compté xaalis ten thousand dollars twenty thousand dollars thirty thousand dollars forty